dikkati naa wure wa day dem na këng waxi mag dem na ndaa daali faw jël la am waxi maga turbine yéen kaay waaye it war nañ koo mën a laajte ci ñaari député yii di Biaye ak Sall yéen dee média bi ne lan la justice di xaar ngir jàpp ñaar ñi laa bëgg xam assemblée nationale leen waroon ci mbir ba def nañ ko daal dina ñuy teggi malaanu kiiraay Boubacar Biaye ak Mamadou Sall ñetti weer a ngi nii scandale passeport diplomatique bi nekk di lëmbe réewum ko moom ma nga ca yoon yàgg na ba sax nag ña nga xam ni bien ak Sall def muy kilifa ak Simon jàpp nañ leen fi ni leen ràpp ci kaso bi boobaak léegi laa la wax nii turbine ne ma dara amagul lamb ji fi amoon daaw verdict ba la xaar diggante bien ak Sall justice la xaar l'observateur ne booba Macky Sall day ma ngay wax ci jàpp ñeneen mu di dossier Barthélemy bi Macky Sall ne li ma leen mën a xamal mooy léeg-léeg ci presse bi sax laa yégée ni ba sax coow di cay am convocation Barthélemy bi pour ma laajoon ci dossier Barthélemy ba élection locale yi jàll may xamal ma ni moom président Macky Sall day pare nag ngir teg ci table bi ñu waxtaan nees def ba xalifa Khalifa Babacar Sall ak may sa Wade mii mën a dugaat ci langue politique gi critique yéene kaay ne mbaadu nag médiation bi nga xam ne gars yi tàmbali nañ ko ni nitug diine yi ak président Macky Sall day mujjee tàbbi géej en tout cas président démb dalal na leen waaye waaye yeewi askan wi ñoo lànk ba tudd ci suuf ne charte googee duñ ko xaatim le témoin yéene kaay ne ma Farba Ngom mi ngi ci guddi gu bët setegul de ndax nag moom Farba Ngom mii fexe ba Jibril Ngom dem ca pale ba Macky Sall dafa lankoon far ba nag yóbbee président guuta ak coow Abdoulaye Daouda Diallo nee na man dawuma coow te Sénégal amul jafe-jafey fay benn bor kon nag ba tey mën nañoo leb ñun tànk ñi ngi mën fay war nañoo mën a leb waxtu woow Sénégal di bàkku ci mën lebam grand place dama béykat yi moom ñi ngi fat daanaka ñu ngi ci sukuraat faatoo leen dese ci nguur goo xam ne fu laalu leen joxu leen seenu gëdd mel ni sax ku leen jéppi ñoom béykat gaa yi ne nguur gi fas na yéen a jëndee kilo gerte gi juróom fukki dërëm loolu nag mooy nañu gën a ndóolal béykat yi yokk ca la ndóolan faf ci ne du ñu jaayee njëg googee ndax arrangé wuñu ndax itam ren ji xam ngeen ni jiw yu ñu jox dara baaxu ci point de collecte yi nag daañ fa fees dell baykat yaa wax ngir nag lànkal nguur gi la mu bëggee jënde suñu gerte gi duñu ko nangu ñu sax amali manifeste ñoom baykat yee wax ba tey de diggante Kaolack Kolda ak Kaffrine waaye tam amal ab toogaanum ñaxtu ca makkaanu ministère bi yor wàllu mbay mi baykat yee sonn nee ñu waxtu waw sàll ngaari lam tooro tal lu dul teg fi premier ministre jañax ñu ko ne force day am sut ko di ñee ne Macky Sall bu tëddee ma nga ca palang boo xam ne war na fi mën a teg ab premier ministre war a andi ak coppite nag ci constitution réewum Sénégal te loolee warta dàq benn yoon ab remaniement ministériel soppib gouvernement élection locale yu 2022 yii amam yàlla la wóor fi mu ne législative ak présidentielle 2024 coow la it nekk foofee Sud Quotidien moo ma ko xamal docteur Abdourahmane Diouf ci 24 heures yéen a kaay ne yow président Macky Sall lii nga bëgg def yaa ko tey da nga bëgg nag ut bi la bëgg docteur Abdourahmane Abdourahmane Diouf mooy wax ak président Macky Sall bëgg fi nag teg ko saf waaye duñ ko nangu te nag faaw ñu saytu coppite constitution bu baax a baax ndax itam président Macky Sall sañ na lu ne sañ na nag soppi soppi goo xam ne premier ministre mën na koo wutu saa bu fi jógee te président Macky sañ na lii puus nag nu mu gën a yàggee élection législative yi su ko defee nag mu am majorité fal président bu assemblée nationale jébbal ko nguur gi nag daal dinañu bàyyi bàyyi docteur Abdourahmane Diouf ne attention président Macky Sall sañ na lu ne Dakar Times ne yeeg sañ nañu lu ne ci réew mi waaye journaliste yi leen koy jottali dit kenn du ñoom yéene kaay bi ma président Abdoulaye Wade fii la fi tam président Macky Sall Aliou Dembourou Sow bu APR génnee fi jaas yi Farba Ngom it waxoon na fi tooxi doona Ousmane Sonko it waxoon na fi nañu fusiller ancien président yëpp te wax yooyu yëpp nag presse bi moo koy daal di jottali barki Dembo Ndiaye Gaston yàq fi musiba Barthélémy Diaz réew mi quotidien ne Gaston kay dafa jaawale arène ba nuy xeexee di boxe ak arène politique bi la mu wax Barthélémy Diaz ñaaw na moo taxit waa CORED SYNPICS CNRA bu baax a baax a baax kàddu yi nga xam ni Gaston Mbengue daal dina koy yëkkati tribune yéene kaay ne Gaston Mbengue moo war a noppi libération yéene kaay moom wal fajiri day ma ngay xam le ni keccet ko ci kàddu Gaston yooye yooyee yoonam new ci source aané moo ne day gars yi xas nañu Walf ndax émission wa dañu ko enregistré kon nag waroon nañ dagg kàddu yu ñaaw yooyee nga xam ni Gaston Mbengue ma ngi koy génn ci wàllug waaso tribune yéene kaay ne ma doonub sénégale sax jamono ji réew mi danger la ndax nag descos ak ministère de l'urbanisme ñi ngi nag yàq ay téeméeri téeméeri million ñi nga xam ne dañu yëngu nag ci panneau publicitaire yi tribune yéene kaay ne mag bari na ci xàll ci ndakaaru yoo xam ne dañu leen xamal ne leen yéen ñii sénégalais yi yore ay panneau publicitaire bu leen ko fi wékkati moo tax seen kuréel ga la ñu njort moom moo di ministère de l'urbanisme ak itam descos la ñuy waajal moom moo di indi fi ay entreprise yoo xam ne duñu sénégalais ngir ñu riigal nu seen i panneau te duñ ci mën lenn booba Sénégal ak Chine ña nga ca waxtaan tribune yéene kaay ne ñeent ci proposition def nañ ko waaye itam juróom ñeent ci programme ak lu ëpp projet yoo xam ne diggante Chine ak Sénégal ñoo koy daal di séq libération ne ma navire bii di Djilor day teg nañ ci loxo lu ëpp quatre cent quarante sept mille euros la ñu yoreel ñu leen ko jébbaloon ñoom it ñu nanguwaat seenu bato suur su aanee coowal Miss Sénégal gi mësta jeex Ali Bathily directeur bu SODAV ma ngay xamal ni ñoom keccet leen ci SODAV raxasu nañu ba set wecc ci Miss Sénégal Mame Matar Gueye ci laas yéen kaay xamal ñu ne parquet bi day dina dugal loxoom ci coowal Miss Sénégal gii booba it suur su di ma xamal ne Baba Tandian day ma la ñu ne dafa tekki ndombal tànkam quotidien le quotidien xamal ma ne moom OMS tey ma ngay lu dëgg-dëgg Afrique mi nga xam ne dañ ko fas yéene isolé laas yéene daal di may xamal ne variant omicron moo ko daal di waral bu coronavirus bi tax ba Afrique du Sud ñu daal di koy menacé tëj ay frontières Macky Sall daal di xamal ne Sénégal du mës a bàyyi Afrique du Sud OMS daal di xamle ni solidarité mondiale moo fi jeex ba tax nag ñu bëgg a bàyyee Afrique cëggal guyam jaare fa tëj ko nag rumbuxloo ci coronavirus bi bu leen fàtte ni wopp la te mi ci réew mi te day fàtt moom coronavirus yendu leen ak ngir Sénégal Sénégal daal di am jàmm jamono jeejele mu am nag ay kàddu ay kaddu yu ñagas yu jukk juge nag ci Gaston Mbengue moom mi tudd nag app lignée wala sax ab ethnie li ni mel nag metti ñu bari même bu fekkee da nga ñàkk app cofeel ci sa adversaire politique wala tax ngay sànni kaddu yi ñaaw ci fameem ci waas ba mu bokk wala sax fa mu jugee mu mel ni ne loolu doyul ndax nag même bu fekkee ne am na ay reproche nit ñi critiqué nañ ko def nañu ay remarque teewul moom Gaston Mbengue ñëwaat di rëccuwu ci lenn xanaa kay muy jéem a justifié wu nam ko defee sax dënati ñaaw ndax nag ab cynisme bu reetaanlu ci moom ngir wax ne que sénégalais yi dañu manqué sportivité ndax nag am sportivité mooy génne ay kàddu yu ñaaw ay kàddu yoo xam ne mbiru po waasoo la doon nag lu garaaw loolu même bu fekkee ne moom mile sax jàppul loolu ci dëkk boo xam ne ndëgër laayam ci wàllu jàmm bokk na ci cohésion sociale bi am ci diggante waaso yi ci diggante këru diine yi kon nag daal di sape rek lu mel noonu noonu rek nekk na loo xam ne du acte citoyen. El Hadj ban jàngat nga ci kàddu Gaston yi nga xam ne ñu bëri ñu ngi koy ñaawlu. di ko ñaawlu comme tout le monde mais jàpp nañ njuumte am na ci ci ñett anam. Mhm. bu njëkk bi mooy euh, Walfadjri juum nañu bu fekkee émission PAD la. Mhm. mais ñoom nangu nañu seenum juumte ba génne nañu këyit baalu. Mhm. merci Moustapha Diop ah, vraiment loolu sens de responsabilité la. loolu doom la ñuy xaar ci moom nag euh, ci jikkoom comportement am ak mat gi nekk ci moom juum xam ne juum nga heureusement fu ñoom teel na leer ci côté boobu euh, bi ci des mooy Gaston boo ko jigee di ko xelal dañ koy wax ni ak sa age yow dañ la war a séentu ci ñiy def médiation di def ay jéegoy jàmm mais moom itam ñu ngi koy interpellé mu baalu du ko wàññi dara moom itam na baalu publiquement du ko wàññi dara parce que dafa juum te mag waratu juum ci pénc Gaston nekkatul jeune xale la âge bi mu am na xam ne mag la mag du jum ci pénc bu juumee ci pénc bu mu am kersay baalu na mhm. baalu comme walf na ñu jéggaloo euh, ñetteel bi ci des euh, ñuy bàyyi xel bu baax ci affaire bu ñuy génn ay discours bu ñu wax mukk lu neex Mame Mbaye mhm. bu ñu wax lu neex Baye Mante bu ñu wax lu neex ma Massamba wala Mademba toujours na ñuy nekk ci position boo xam ne lu dëggu lay nekk Euh, bu fekkee am na ñu mu arrangé baax na bu fekkee am na ñu mu arrangé baax na mais toujours critique lay nekk ci li ñëpp bokk mais ñuy moytundi ko xastante ci diggante xeet. Mhm. xastante ci diggante diine. ko nangu sax. Euh, Sénégal xamul loolu. Mhm. ñàkk koo xam moo tax suñu luwaa bii ñu ñu di ñuy àttewu ñun ñëpp nee na. Mhm. bépp haine bu ñu wanee manifester ko ci wàllu diine ci wàllu ngëm-ngëm ci wàllu xeet yoon waajal na ay daan yu muy teg ci kaw ki ko def. ñuy xaar itam yoon def liggéeyam pour yu mel nii mën a bañu a continuer Gaston nag jëkkewu ko ci xeetu flèche yu mel nii. Mhm. ma jambal jaañ waxoon na ay rebelles yu jógee Casamance bokk ci manifestation yu mois de mars yi. mu mhm. jul fenn. am na yeneen i attaques yoo xam ne am na ci diggante xeet ak xeet. borom jaasi ji nag jaaduwul Omar Dumburu borom jaasi ji. waaw Omar Dumburu Sow wax na fi lu mel noonu moom itam ci nañ jël ay jaasi. Mhm. yooyu defe naa ni rafetul ci aw askan. mën nañuy critiquer suñu gestion parce que loolu moo jàddu mhm. parce que gestion bi dañu la dénk lu ñëpp bokk mënoo fexe ba duñ ci bàyyi xel mais kantaa ci foo bokk wala loo gëm bu ñu ko sàgganee man li may li may li may demandé mooy justice def liggéeyam comme waa correct ni ñu génne comme Sénégal ni ñu génne comme waa Simpix ni ñu génne mais sant itam Moustapha Diop ci mat gi ba teel a génne communiqué baalu wax ni loolu du seen intention reconnaître aussi seen njuumte mu des koon Gaston moom itam mu baalu publiquement ndax mag du juum ci penc. lu am solo jaajëf le député du peuple rendez-vous kon 13h. incha allah maam ak ci kanam tuuti ci tës kanam tuuti tës incha allah. ak ci la 89.7 dalal Pape mu ci tàggat yaram. borom jam cité Dougar maa ngi laa nuyu. maa ngi laa fay bu baax a baax. naka yi tey département bi alhamdulilah. ndax yu tey. waaw ñu ngi góorgóorlu de. ah lijjanti. waaw ñu ngi koy lijjanti bu baax a baax nag. ba soj gi ma jàpp jàpp la rek. waaw dafa mel ni comme nag est-ce que newul ndorteelu. changement climat bi. waa yow teel na de. maa ngi jël sama dose de fu mu nekk ni kenn xam. affaire teel na de. non dafa yéeme ballon d'or bi la ñu koy doon Lionel Messi moo ko jël. waaw démb nag kon mu nekk ak record jëm ci boobu la trophée di récompenser nag trophée individuel di récompenser meilleur joueur jëm nag ci àdduna bi kon Lionel Messi démb lu ko jël mu nekk nag juróom-ñaareelu yoonam eh, ci nag kaw kii di Lewandowski ak Jorginho saison kon jàppale sax Mame Mbaye Messi moom bokk na ci lu ko tabbee ni nga xam ne moo nekk meilleur buteur ci saison bi ñu génn foofu ca Liga bu espagnol ak 30 réalisations ñi ko doon jël euh, coupe bu roi ak FC Barcelone attaquant 34 ans bii lee jël nag trophée bu njëkk ak Argentine muy euh, saison bi ñu génn ak euh, Copa América bi daanoon Brésil benn bal ci dara ci boobule sax compétition moom moo nekkoon meilleur buteur ak ñeenti but nekkoon kon ci la changé club dem foofu ca euh, Paris Saint-Germain jàppale nag euh, kon Robert Lewandowski moo nekk ci euh, gannaaw moom mi la ñu bëri amoon na yaakaar ni moo ko jël waaye nag Robert Lewandowski kon Lionel Messi moo ko mujjee jël ci kawam moom di fàttali que nag saison bi ñu génn moom moo jël championnat bu Allemagne muy liga bi ni ko noonu nekk tamit meilleur buteur. ci année 2021 ak 64 buts ci 54 match ci beneen wàll ba nag euh, Jorginho euh, doomu italien bi nga xam ne mooy football foofu ca Chelsea moo nekk si ñetteelu place bi en tout cas euh, guléet nag ñu gis Cristiano Ronaldo bokkul nag ci boobu boobule podium ngir lu jëm ci wàllum Ligue des champions loolu nag ci atum 2010 la gëjoon Karim Benzema moom nag la ñu mu nekk cinquième position Mambay ci ñu waxtaanee trophée chine na ñu koy jox meilleur gardien bi Edouard Mendy moo nekk ci deuxième place bi waaw en tout cas mu nekk tamit euh, lu jaaxal ñu bëri ndaxte soo xoolee euh, performance su Edouard Mendy nag ci saison bi ñu génn jël Ligue des Champions nekk tamit meilleur euh, joueur UEFA demal na amal ay taxawaay yu am solo sax ci nag boobule compétition ni ko noonu ci championnat bu Angleterre waaye ci ndoxteel nag kon kii di Gianluigi Donnarumma nekk waxtu wi foofu ci Paris saint moom nag la ñu tabb mu jël boobule trophée di trophée Yachine bi nga xam ne day récompensé meilleur gardien de l'année kon portier Euh, italien bi nga xam ne ci diggante bi changé na club joge ca Milan AC dem foofu ca Paris Saint-Germain lu ñu ko tabee nag kon bokk na ci moom moo nekk meilleur kon joueur ci Euro 2020 bi gagné tamit boobu le trophée ak Italie amal tamit saison bi exceptionnelle waaye tamit lu ci mënti am daal kon kii di moom moo ko mujjee jël ci kaw kii di Edouard Mendy yeneen trophée nag jëbal nañ ko démb ni ki ci 65e euh, trophée bu jëm ci wàllum Ballon d'Or Alexia Putellas 27 ans la moom milieu terrain espagnol bi bile moom nag la ñu tabb mu nekk ballon d'or Afrique euh, féminin capitaine blaugrana bile di fàttali moom mi la récompense yi bokk na ci moom moo inscrire 33 ak FC Barcelone Pedri FC Barcelone lay football moom nag la jël mu tabb ko mën jël trophée euh, Copa boobu la trophée nag bi mooy ñetteelu yoon gannaaw boo ko Kylian Mbappé jëlee ak Matthijs de Ligt ñu waxtaanee kon classement beach soccer Sénégal moo nekk cinquième place. waaw moo nekk cinquième place bokk na nag si li nga xam ne euh, kii dinañ tàggat di ngala si la rafet na ko loolu di xam ne nag liggéey bi day woy te Sénégal nag waxtu bi mbébétam mooy mu def kéem kattanan ba nag trophée bi nga xam ne euh, mooy euh, lii di Coupe d'Afrique mu conservé ko. ni ko noonu tamit gën taxawal jëm ci wàllum Coupe du Monde bi su ma nee sax jël nag deuxième place wala bi la Coupe du Monde dañ ciy lu kii di ngala si la bi ñëw ba cinquième bi ñëpp xam nañ ne tey yombul woon place bi ñëw fii mais pour xam na rek ne tey liggéey rek xam nañ ne fédération Sénégal dugg na xam bu baax a baax état du Sénégal aussi dugg na si loo xam bu baax parce que classement bi boo xoolee compétition yi fi jaam pour loolu weesoo nag vraiment ñu ngi remercier joueurs yi si terrain bi aussi vraiment def nañ liggéey bu bu baax di remercier ñëpp di wax na rek euh, di nekk sunu kanam nag continuer di liggéey bu baax baax donc ñun dañuy jéem a fexe nag euh, prochaine échéance yi di ñëw octobre 2022 ñu jéem ko jëlaat Mozambique incha allah beneen bis topp nag euh, mooy bu ñu demaatee coupe du monde fexe ba jéem a si podium bi comme te bi weesu nii ñu jël quatrième ñu àddu jëmale ci coupe de du maire bu Bignona ASC Saint-Étienne relais moom moo jël ndam li. waaw ay ASC Saint-Étienne relais kon moo jël nag coupe du maire édition 2021 foofu ci diwaanu Bignona gannaaw ba mu daane nag ñi di waa Kajamor ñetti bal ci benn final bi nag euh, ki ko présidé woon di nag euh, maire bi di euh, Mamadou Lamine Keita di xam ne nak ci lu yàggul dara ci atum 2022 kon dinañ nag ubbi stade municipal bu Bignona rafet rafetlu tamit fair play bi ñu ci amal ñoo fekk fa Bignona Abdourahmane Diallo. daje bi mu ngi amoon ci diggante AS Saint-Étienne Relais ak AS Kadiamor ca stade départemental bu Bignona. nous avons assisté à une très belle finale. même su fekkente ne Saint-Étienne Relais moo jël ndam li ci bile finale jaraaf bu Bignona daal di attribuer victoire bile ndaw yu yeewoo ca biir commune am. nañu jàpp ne lii kenn gañewul kenn perdul. jeunesse Bignona moo gagné. mbégte bi réyoon na lool ci vert blanc yo seen capitaine di Famara Bari. def nañoo jël coupe nag lii lañ bëggoon jël coupe au moins même fekkee benn coupe sax mais ñu jël ko. Mamadou Lamine Keita daal di saisir opportunité bi li ngir annoncer ay ndawam nouvelle bu neex bi li déwén li may ñaan yàlla mooy final bi ñu joué ko stade municipal fekk lamp takk. suñu tribune pare suñu lépp pare. image bu rafet bile moo sanctionné li nga xamante ne moo di ndaje bi ñaari capitaine yi di yëkkatandoor trophée bi mu nekk image bi nga xamante ne bu ñu sukkandiku ci Mamadou Lamine Keita dafay symboliser parfaitement li nga xamante ne moo di esprit bu fair play. ñu desandi ba tey foofu ca diwaanu Bignona lu jëm nag ci zone 24 euh, bu ODCAV bu Bignona jàppale nag ay C3B moom nag la ñu euh, tabb kon mu nag euh, jël lu jëm ci wàllum nag final départemental bi ñu doon amal gannaaw nag ay incidents yu fa amoon foofu ca terrain bu Sindia en tout cas lu ci mënti am daal parrain bi moom mi la nag rafet na bu baax a baax nag décision bi nga xam ne jël nañ ko ci noonu sax ci la jébbal trophée bi lii di ay C3B Yankouba Sagna la yoo ñu teewlee kàddoom ñi ko waroon àtte ci côté zone bi ñu jox 3B euh, victoire waaye beneen équipe bi daal def appel au niveau de département bañ demee département bi département bi daal di topp ndigal bi nga xam ne boobu la zone bi daal di joxe daal di ne équipe bii nga xam ne mooy 3B moom moo mérito ñu jox ko euh, ndam bi donc bu ko waxee. Mame Mbaye jàppal ne nag kon ci boobu élément Yankouba Sagna nekkoon euh, parrain bu euh, final zone 24 euh, ODCAV Bignona foofu nag la ñuy ndàrkeppe lu jëm ci wàllum xibaaru tàgg yaram ñu joxante rek dig daje pour 12 heures jotee ak 13 heures incha allah. loolee ci Zik FM la. 89 point 7 jaajëf Pape Man Tëmbub li ngeen di teewoo ci wàllu tàggat yaram moo leen koy jox suñu.